ayca ami internet euh, témoin web TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax boo leen gisee euh, tey fi ñu taxaw seen xel dina dem euh, ci ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio waaye it seen xel dina dem ci ki nga xamante ni moo di Serigne Saliou Mbacké tey nag ñu ngi ci waañ bi nga xamante ni Serigne Saliou Thioune defe naa ni ndigal li fi nekk moo ko fi joxe waaye it ñu gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor programme bi ñu gis fi ay góor gis fi si ay jigéen ñu def liggéey bu bu am solo dama leen wax mbokk yi nga xamante ne yéenay seetaan Témoin Web TV ngeen xaar ñu ñu dugg ci biir euh, présenté leen ñi nga xamante ne ñooy togg gis ngeen euh, mbokk internet yi ñu ngi fi euh, fi nga xamante ni nag moo di bërëbu Cheikh Béthio laa ko mën a waxee waaye it fi nga xamante ni fi la Serigne Saliou Thioune nekk gis ngeen Serigne Saliou Thioune sànq bi mu génnee rek biir këram mi ngi fees dellakaay nit waaye it gis ngeen ñu ngi ci waañam bi nga xamante ni moo nekk fii damay daal di dem euh, doxantu tuuti dékk sama micro ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci waañ bi ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ñoo ñooy ñooy liggéeyal Cheikh Béthio laay wax ñooy liggéeyal Serigne Saliou euh, sama cameraman danga may topp rek ma dékk micro ñenn ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ci waañ bi asalaamaaleykum maa leen di nuyu bàyyi na ngi am jàmm bu baax a baax a baax a baax témoin web tv ah. moo ñëw euh, seet si leen euh, yéen ñi ga xamante ni yéen ay euh, yéen ay soppe yi di taalibe yi Serigne Saliou yi rawatina taalibe Cheikh Béthio Thioune tey seen teewaay tey fii ci bërëb bi lan waaw ginnaaw bañ sant yàlla di leen sant bu baax di leen ziar bon ñun nag suñu teewaay bi dañoo ñëwoon màggal man sax man en particulièrement man màggal laa ñëwoon mais kii kii yor bërëb bi ki kii yor waañ bi jëwriñ bi man moom yàgg na depuis quatre ans depuis quatre ans si cinquante mandat lañ commencé woon ñu commencé cinquante ana bu jógat deux mille dix neuf ñu def cent deux mille vingt ñu def deux cent ren si 2021. nga mel ni nga ci am expérience ci waañ bi. defe naa ni ci lu fi tàkk lu nekk rek xam nga nombre bi ñaata la fii nii tey bu ñu ko dee xayma ñaata lay tolloon. fii xayma bi norme cinq cent la te cinq cent yi sax teg na. Uh-huh. waaw. des na fële ay yaay mbana fee am na cinquante mbana yoo xamante ni pompiteer rek lay def pompiteer kase am na yeneen cent quatre-vingts yi ni war a tëj fële après soos kase la fii li nga fi gis ni yëpp kii rek lañ fiy def euh, xëlwa mhm. xëlwa dong la chaque année nag tufe lañ daan def mais ren xëlwal affaire ba changé nee naa leen chaque année taalibe Cheikh Béthio waaye taalibe soppey Serigne Saliou yi dañuy dañuy dañuy changé comme ni ko nit ñi defee seen i kër ñoom chaque fi màggal si waaye bégal ñi nga xamante ne ñoo di soppee taalibe Cheikh Béthio Thioune sëñ bi maa ngi lay bàyyi ma daw jàll ci keneen xool ayca jo maa ngi jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moo di Chérif moom mooy la maa lay siyaar di tur bi naka la. tur bi Modou Faye la. lan nga ci biir euh, bërëb bi maanaam ci waañ bi lan nga fi. man jëwriñ laa fi parce que depuis bi mooy trois ans yi nii ñu koy toogal waaw parce que daaw ñooy togg sambana fii si kër gi kër gi cent kër gi cent muy deux cent ren nag ñu fas yéene togg sambana fii ren nag ñu fas yéene ñëw def loo nga xamante ne fii bu Touba Sanco ba léegi nii ñu def loo xam ne mosu fee am muy sambana yi. boo dee xool gox yi mag yeeg yëpp yëpp yëpp yëpp mosuloo am lii ren nag ñu ñëw fas yéenee def si sang mën a waaw ngir lan séddale ko gox yi te lii ay ndekki rek la nag waaw parce que am na ay mbane yu war a dem bàkk ya ak coté jumaa ya tamit ndax en tant que jëwriñ doon fii ñu gis fi ay tuut tànk ay xale ngeen lan mooy seen euh, doxalin ah, dañu gis xale yi dañoo am fas fas am farmu dara ci wàññi waaw xale yi am nañ passif lool parce que soo ba léegi ñoo fi ak ñun ngir lan ngir sëñ bi rek parce que moo ko def si ñoom quoi waaw malheureusement mais xale yi ñoom dañ leen ñaanal yàlla rek fan wu gudd ak wér-gu-yaram parce que mënuñu leen a fay parce que ñun bu ndee xool mbooloo mi rek ñun ñu fi nekk nii rek mënuñu sa dix personnes yoo xamante ni dañ gérer mbana yi moo tax xale yi ñëw di ñu jàppale fi indi matt yi booyal def lépp waaw ñoom ñu xale yi daal parce que mën naa ne ñoom ñoo def lépp waaw lay euh, jaajëfal bu baax a baax gis nga jo moo nekk kii moo nekk euh, ci ñenn ñi ci jëwriñ bi ci waañ bi waaye it ñu nekk ay taalibe nekk ñoo xamante ni ñoo bëgg Serigne Saliou bëgg ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune waaye it di Serigne Saliou Thioune looloo tax ñoom liñ daan amal ba fi papaam nekkee waaye ba fi Serigne Saliou nekkee papaam ne fi doomam ne fi moom euh, doomu Cheikh Béthio ñoom ñu ngi li nga xamante ni moo nekkoon liggéey bi doon continuer ñu bàyyi ko mu tàggatoo. waaw parce que instant ñun moom. mun naa ne sama xol sax seet na parce que ngir daal ngir sëñ bi rek jaral nañu lu ne ñun fu mu ñu woo rek ñu baax parce que dañuy fàttaliku jamono yi am na jamono yoo xam ne nawet la tombé loon ñu koy toogal barki Serigne Saliou ñu ñooy naan est-ce ah bi na jaar yoon ndax taw bi na fay taal wala barki Serigne Saliou noonu la ko toogalee ay tuba barki Serigne Saliou ba mu ko lekkee daf ne ma ngi leen sant leen gërëm foog naa ne lii duma ko am barki Serigne saaliw noonu la si mujjee si kattan suñu borom waaw ñu nuy nuyu mbooloo di nuyu waa Touba fii ba Europe ñi nga xamante ne bëgg nañu ñëw mënu ñëw ñëw am investissement ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen fasaale si kattan seen borom waaw yal yàlla defal jàmm yéen tamit ok so ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom jëwrin boobu waaye it mu nekk koo xamante ni leeral la ñun li am ci waañ bi waaye it gis ngeen mbokk internet Témoin Web TV gis gis ngeen dog bi bàyyiwuñ ko benn taalibe rek taalibe yëpp dañoo bëgg ñëw dañoo bëgg ñëw ah, jàppale ah, pour lépp baax. sëriñ bi am na ndam sëriñ bi am na ndam sëriñ bi am na ndam xol yi sedd na jërëjëf Cheikh Béthio jërëjëf dëgg xol sedd na nañu ànd ak sëriñ bi.